jërëjëf mbokki internet yi seen kàddu yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen dalal ci xibaaru digg bëccëg yi tey ci àjjuma ji yemoog ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru novembre eh, xibaar yi dañu koy door ak jàngoro jàngoroy coronavirus ñu ànd ci ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye mu indi si ay leeral. ministère la santé et de sociale jot na résultat examen virologique yi waay waaj a lim ci junni ak ñett téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent test yi ñu def amul kenn ku ànd doomu jàngoro ji. ci ndakaaru ak ci yeneen région yi toujours ci bilan bi ñu xamal leen ne que tey kenn la ñu nemmeeku ne que wér na bu si yàlla àndee dina génn incha allah ñaari malade ñoo des réanimation amul kenn ku génn àdduna bésu démb alxames ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre miñ nekk ba tey si wàllu wér yaram la ñuy desandi ba léegi ñu dem fële ca réewum Maroc euh, li nga xam ne mooy limub jàngoroy coronavirus gi jamono ji dafa daal di yéeg euh, ci diiru bu 24 heures rek la ñu fa nemmeeku 32 591 nouveaux cas yu bees lu ni mel tax ba autorité yi nekk foofu ca réewum Maroc daal di jël euh, ndogal ngir daal di dakkal dem bi ak dikk bi ci diggante Maroc ak France ci diggante Maroc ak France ci vol yooyu nga xam ne ñoo war a dem ci ñaari dëkk yooyu la jamono ji ñu toll wax ci scandale sexuel mi Sénégal 2021 ginnaaw bi déposé ay plainte yu bare bari euh, ci ndodd ki nga xam organisatrice bi di Amina Badiane euh, l'unimel ni mel tax ba ONG Jamra té mam Makhtar Gueye nekk sen dit ñom itam yéxuñu benn yoon ngir daal di ci benn communiqué bu tuppé bu tuppé euh, ci ONG Jamra ñom kat lañu ñu ca tënk dinañu génn ci li nga xamné moy Med Dakar yi daal di fay amal manifestation bu am am solo ginnaw li nga xamné dañ ko ku ci jongante Miss Sénégal ak yàqute yi nga xam ne moom lay def fii ci réewum Sénégal bu loolu jàllee ñu wax ci lu ñeel jàng mi kuréel gi di CUSEMS e ñoom kat daal dinañu xamle ni 30 novembre bi ñu jëm dinañu amal li nga xam ne mooy débrayage teg si grève générale ginnaaw kat ñoom ba ñuy wax seen revendication ñeel jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ci seen wàllum jàng mi waaye itam ñoom niveau yi nga xam ni dafa beese torop ci côté ñi nga xam ne mooy ndongo yi waaye itam ak li nga xam ne état daf ko digle ak ñoom ba léegi dara saafarawu si

bu loolu jàllee ñu wax ci politique ginnaaw conseil des ministre bi njiitum réewum Sénégal doon amal la mu ca xamle bokk ni dina delloo si waat poste premier ministre bi ci gouvernement bi lu nu mel sax ñu gis ni dafa juru coow lu baree bari fii ci réewum Sénégal ndax kat politiciens yu bari seen gis-gis dafa wute ci lu ni mel ba tax na ki nga xam ne mooy président Doudou Wade moom kat la mu wax ni post premier ministre bi euh, bu ñu ko delloosee yaakaar na ni gis na daf ko rafetlu ndax euh, dafay dox ci li nga xam ne mooy diggante assemblée ak ñi nekk ci gouvernement bi bu loolu jàllee ñu door xibaaru tàggat yaram yi ak euh, ligue euh, Europa League euh, ñu dem ci cinquième journée olympique de Marseille moo daal di ñàkk ci kaw Galatasaray bu bu Mbaye Diagne ci score 4-2 groupe H ci groupe H bi ci phase de pour ligue Europa yi ba tey dañuy jeexalee xibaaru tàggat yaram yi ak Europa League Monaco daal di dóor Real Sociedad ci score de un daal na dem ci li nga xam ne mooy prochain tour yi gën ñi nga xam ne ñooy rouge blanc yi ñoom kat daal nañu gën a wane seen bopp ci cinquième journée euh, ñeel Europa League yi mbokk yi li leen leen fi indiwuloon ci xibaaru diggi bëccëg gi euh, di leen ñaanal kenn dalu jàmm